tijaani sama waay la camiñal jaara busu wala man sebi jaara jurujub taalibe la taalibe la na ne dina ko war Ah, jàmm ak salaam rek jàmm ak salaam rek jàmm ak salaam rek wax dëgg yàlla xanaa yàlla ñëw ak ak dogalam soppi mbir waaye mi ngi woon loxoy Ada yàlla nag moom ay mbiram mën na la wan lu leer nañ ba nga gis ko mu xool lu ko neex mu def ko rabbi sama rek ko fi ne bu waay mën a àndal ci àdduna yàlla la neex mu ànd ak ñi naan neex yàlla am naqar yàlla am sax dañoo baax di wax rek waaye seen leen fi jiitu foofu te dem nañ te kenn tëlu leen fudul yàlla lu waay àndal yàlla la. mais bu ñu nee jàpp ñaari mbir daal wax naa ko ci làmb Baye Man Ndiaye ak euh, albarka ma ne làmb ji dafa ci loxoy Baye Man kilifa gu mag woo ma ma taxaw ko ñaanal ko yàlla pour yàlla suturaal ko ngir yërmande gi mu am ci moom ma ne ma am yërmande ci moom ñaanal ko côté bu ne laa ma jël la muy lëndëm lëndëm lëndëm ak la muy tax tax tax tax lu ku na li ci am courant bi coupé na fi tool yi am na fi jël yi jaxasoo na du la jaxasoo na waaye moom la ñu di yëkkati loo xam yal na yàlla di doole suturaal rek yëngal nga lamb yëngal nga lamb lépp Serigne ma doon ma benn secret bu du Serigne Serigne Saliou rek kontaan sama da jaara bu sub wala ma se jaara muy nit bu baax bu correct di ko ñaanal yàlla yàlla jàppale ko sàmm ko taxawu ko di ko ñaanal soxnaam su mbulu seen sëy bi yàlla na barkeel seen doom jooju di soxna jaara yàlla na dund am ndayu baay jàmm rek laa koy ñaanal ndax man nit mooy wax waxal li nga xam ci moom yëg-yëg gi mu am ci man du ma nemmeeku da waxtaan ak man ba démb ci bëgg rek déggante nañ kon yàlla na ko yàlla yokk yàlla suturaal ko coono nag nit ñi am na sax ñuy jëlee si turam naan xaas te duñ xaas borom numéro tigo bi di lancé war appel Sénégal xaas yoroon numéro tigo arnaqueur yi wax naa ko xaas nee naa ko lii damaa yaakaar man rek lañ koy def naka yow ñu ngi la koy ku nekk kanam rek la xool tànk bi dëgg te nit bu lay dàq jotul la lan force sànni la ko ba mu ndax dégg nga wala déet nit bu lay dàq jotul la daa jóg di jiw na leen bàyyi yàlla rek. li nga xam dugg ci li nga xam ne moo di làmb dëkk nga xam ne Xadim Ndiaye ak Lirou Diane ak beneen combat xam ne surprise la combat mag la waaye tam mu dëkk ba ci man mi Idaly ak li nga moo di Bada li nga xam ne mooy drapeau bi combat boobu janvier lan nga ci faral lan nga ci wax. waaw xam nga ne tey bu demee ba tëdd làmb tëdd journée bu mel noonu ba pare jël drapeau bi ne saa tuuba ko tuddee bu diggante ci daal wala maa leen ak suñu benn kéemaan tey ñëw ñu lamb ñaari lamb jooju moo dàq lépp lamb jooju moo dàq lépp mun na Ama Baldé daa boobu te man yaa ma yaa ma suñu kaay yaa ma ñaanal moo ma jaaxal man moo ma jaaxal tamit ay bara am na problème tey coow la ba pare ci man loolu mais nag ndeysaan lii lii rek moo leen xamal ne sport dafa neex dafa boole wallaay lazim mais yàlla bi am sutura yàlla na leen suturaal seen seen seen seen seen site yi yàlla doon dem ba dem ay télé ñu at lu bépp di suivre yàlla mën na ko yàlla waxul kenn dara yàlla na yàlla soppi te ñu def tey akkaar yi boo xam ne yaakaar na ci yow daan na ci ñëpp tey ñu Wally Ballago Seck ku nekk xam na ne yàgg nga ko ñaanal te xamul xamoo ko nga ko ñaanal te yàlla tax ñu ah, am jàmm waaye gis nañ ne parce que dem mu doon jafe bu méttee métti ak nekk ko métti ah, nga ci ah, sànni ay kàddu d'abord dañuy ziar dañuy dañuy jaaree ndax it moom la ñu war a njëkk a jaaree ndax moo doonoon boobu kërëm te jigéen buy sëy mënatul am ngërëmal baayam mënatul am ngërëmal yaayam mënatul am benn ngërëm bu dul ngërëmal borom kërëm bu ko mënti gërëm ci àdduna pour borom gërëm gërëm la zéro la ajjanam ñu ngi ci loxoy borom kërëm te bubaan ku gis ni mu waxee xam ne xolam sedd na ci moom kon soxna si ñu ngi koy ñaanal yàlla li muy njëkk a gis ci biir bàmmeelam yàlla na doon leer bu yonent yàlla Muhammad yàlla xare ko ajjana di ñëwaat ci waali du ko ñaanal yàlla ndax bëri na loo xam ne sax doonul lu ñuy wax waaye yow am na loo ci xam mais ñun doxewuñu yenn yi parce que ñun ay taalibe lañ dara daal déranger te ki may xam ne boppam baax a baax man alal fokkuma man nit mënu maa proposé dara ci àdduna ci doomu aadama ci lu ñaaw ba tax ma def ko rawatina ki ma bokkal Serigne Touba te moom Baye Fall la jàmm ci moom rek am na loo xam ne du waxu média parce que waxu média mais itam mu jógee texe mais mu jëloon li nga xam ne album en rokanam waroon jëli kon bi ma doon génn magam génn àdduna ak boobu ñëpp bëri naan dina ko jël wala du ko jël en tant que yow sëriñ yàgg a ñaanal waal yi yàgg a gis li si xaar ci waal te xam la xam la bu boo ko jëlee ay ñaan lan ngay wax ci loolu dañ koy ñaanal yàlla rek li mu dëgmal lépp lu mu ci kanamam daf ko yàlla jotale xam nga lu tax man li tax ma koy ñaanal waali société la entreprise la du moom kese bu doon moom kese garaawul mais li nekk ci ginnaaw dafa am doomu aadama yoo xam ne buñ sooxee ñu ne seen ginnaaw ñooy sooxee parce que yow mi ci kër gi di joxe dépasse boo tëddee rek waa kër gi yëpp waale bu tëddee rek gaa yi yëpp kon waale yàlla lay jël saa su ne xaaruma ko ci dara taalibe la taalibe la na nekk li ko war rek jëru sax gisante bi jàmm lay am. jàmm ak salaam rek jàmm ak salaam rek jàmm ak salaam rek wax dëgg yàlla xanaa yàlla ñëw ak ay dogalam soppi mbir yi waaye mi ngi loxoy Ada yàlla nag moom ay mbiram mën na la wan lu leer nañ ba nga mu xool lu ko neex mu def ko rabbi samaawaat rek ko fi ne bu waaye mën a àndal ci àdduna yàlla la neex mu ànd ak ñi naan neex yàlla am naqar yàlla am sax dañoo baax di wax rek waaye seen i bàyyi leen fi jiitu foofu te dem nañ te kenn tëlu leen fi yàlla lu waay àndal yàlla la. mais bu ñu nee jàkk ñaari mu xam nga démb wax naa ko ci làmb Mbaye Ma Ndiaye euh, Albarka ma ne ji dafa lëndëm lool ci loxoy Mbaye Ma Ndiaye te kilifa gu mag woo ma ci ma taxaw ko ñaanal ko yàlla pour yàlla suturaal ko ngir yërmande gi mu am ci moom ma ne ma am yërmande ci moom ñaanal ko côté bu ne daa ma jël la muy lëndëm lëndëm lëndëm ak la takk takk takk takk lu rëy ku ne gis na li ci am courant bi coupé na fi coow li am na fi jël yi du la jaxasoo na moom la ñu di yëkkati loo xam yàlla yàlla di doole suturaal rek yëngal nga làmb yëngal nga làmb lépp Serigne Saliou yow rek man doo ma benn secret bu du Serigne Saliou Serigne Saliou rek kontaan nañ sama waay la jàmm ñal jaara busub wala mañ se bi jaara